bu dee ci monarchie lañ nekk ñu xam ne ci monarchie lañ nekk ñu teg fële loi yi bàyyi ñu fi nekk lu ñu bëgg a def ñu def ko. Hmm. loolu laa gëm ñun ñi nga xam ne mënuñoo noppi ñu génn réew mi abal leen ko. waaw hmm. ah, man sama gaal fi ne ci ñaar yi laa ko teg bu dee état de droit dafay continuer di nekk man mën naa fee dund man su fekkee ni gëm naa ni monarchie te lii fi nekk nii monarchie ci la jëm bu dee ni conseil conseil dafa désigné ko du bokk man moom xaw ma man kan la ñuy wax waaye man li ma li ma fi am bari na mënu maa bàyyi réew mi mais man moom sama xol génn na ci réew mi man defuma ko billaahi du affaire partisan. Hmm. du affaire partisan gis nga lii nii ñuy teg Ousmane Sonko bu ko tegoon Macky Sall ma taxaw ci wetam ay principe la parce que Macky Sall bi ko Abdoulaye bëggee teg ñun ñi dañoo jógoon taxaw ci wetam. waaw kon nañu nañu fexe ku nekk li sa àq ñu jox la ko jàmm mënta am foo xam ne ni dëgg amu fa démocratie amu fa te Sénégal lii fi am nii ak jeng gu fës la ba ñëpp xam ne dafa fës. waaw léegi bu jàng bi fësee ba ñëpp xam dafa fës noonu nga koy régler. non duñ ko non génn nag ci réew mi déedéet ñeneen ñi ko daal di bàyyi mbir yi. nga ñu doxal non non ñun dañuy xeex. waaw dañuy xeex gis nga. xam naa Ousmane Sonko ak ñi mu ànd ñu ñi ngi annoncé le 30. non non ci ay stratégie la wala xam nga ñun. duñ bàyyee réew mi kenn. Hmm. man su la waxee dëgg rek. Ah. man fu ma mën a nekk ci àdduna bi damay continuer xeexal Sénégal sama Sénégal sama deret la nekk mais réew boo demee ba amatoo sécurité diina may na la nga génn fa parce que sécurité mooy bu dee yow boo ko waxee à tout moment mën nañ laa wala ñu tëj la parce que réew moom bu amul justice kenn nekkul ci sécurité man tey bu réew mi amee justice amul problème li ma xalaat dinaa ko wax te dinaa mesurer samay wax ba justice du am ci man yoon waaye bu ma leeree ne réew mi amul justice su ma lii may wax nii kat su ma ci continuer à tout moment nit mën na ma jaay doole néewal ma ko te fa ma dem fa mbax na doonee benn du même buñ ma joxee dëgg duñ ko appliquer mm. parce que d'accord ma ak système bi mais réew moom kenn kenn waratu faa dund. Mm. ci cadre boobu laay waxee. mais Ousmane Sonko koo xam-xam ni dafa gëm ni la combat est loin d'être terminé. ñun dañuy ko dañuy ko ne di xeex ba sunu dernière énergie ñu jox leen ko. lu ko wëndu le 30 bi. non le trente moom xam nga comme gars yi dañ waxuñu ci. Mm. xëy na seen stratégie la man mënuma cee wax man daal li ma la mën a jox comme garantie. mooy Ousmane Sonko dinañ déposer candidature am dinañ ko yóbbu conseil constitutionnel. te ñoo ko fay yóbbu mooy ñi gën a maîtriser droit ci Afrique. Ah. waaw ñi gën a xam loi ci Sénégal te nag mu nekk candidat bu neexal layal. candidat bu logique. Hmm. parce que candidat bi hmm. yoon moo ko jox àqam. loolu rek la conseil constitutionnel di valider. oui mais ñi jàpp ne mën naa jeexee ci waxtaan. non ñooñu ñu koy wax amuñu information loolu il faut ma ma ma wax ci ak responsabilité maanaam man waxtaan mënul am ta duma ko yëg. ah man am naa fulla lu ma amul information du ma ci wax de waxuma pour wut buzz. waxuma information de de de première main ngay wax wala. information bi ko lay jox waxtaan amul. Ah. Macky Sall doxul ci waxtaan. Macky Sall li mu ŋànk bàyyiwu ko bu ko doon bàyyi bàyyi na ko bu yàgg. Hmm. waaw. fi mu nekk nii waxtaan amul loolu il faut ñu leeral ci ni ñiy wax di yàq xelu nit ñi tamit il faut ñu arrêter loolu ñun daal ci justice lañ yaakaar pour bokk te justice jox nañu droit pour ñu bokk yaa ngi dégg. Hmm. mais yaakaaratuñ ko ci Macky Sall parce que Macky Sall position wane na ko mooy tout sauf son ko imaam ku mel ni mu Ndiaye Cissé dëggal na ni waxtaan a ngi am ci suuf am na ñu koy dox euh, Cheikh Abdou Mbacke Baara Dolli ñoo dëggalaat ko ne ñoom sax seet si nañ ko. seet si nañ ko Abdou Baara Dolli foofu ma taxaw. Cheikh moo ko seet si. nee na ñooñu seet si nañ ko. sans pourtant wax ñaar non non déglul foofu koy dox. nuage la ci suuf di am na ñoo xam dañuy wax naan ay. pousse ay élection xaw ma yu kenn xamul. waaw Ousmane ñooñu déglul rek. Sénégal naka jekk depuis dossier bi ba tey am na ñuy jóg di dox ci suuf loolu mosu fee jóg eh. mais Macky Sall moo tëj porte yëpp Hmm. waaw man mi la koy wax parle en connaissance de cause ñiy wax waxtaan tey it fan yii lañ ko commencé di wax man ba dossier bi jógee ba tey waxtaan laay woote. man ñaat <coughs> ñaata yoon laa rencontré président ci dossier bi. kon kay li may wax nii xam naa ko Macky Sall doxul ci waxtaan bëgg ko parce que moom même bu ko bëggee fi mu nekk nii ñi ko wër ñoo ko mayul chance mu def ko te donte waxtaan moo gën ci moom man loolu laa gëm. parce que mënul ko kon na ci à point ci Ousmane Sonko. de non non Macky Sall dafa dem ba. dafa dem ba dafa dem ba dafa dem ba entourage am ci boppam ak moom ci boppam gëm ni Sonko mi buñ ko bàyyee mu jàll défaite la pour ñoom à vie. Hmm. mais mais mais li la koy wan mooy li la koy wan mooy gis nga nit doo gis ay jëf di àtte li nekk ci ginnaaw jëf yi yow Macky yow Sidiki Kaba. buy joxe ay ordre ñuy téye ay fichu fichu fichu Ousmane Sonko loolu kan la neex ki di Sidiki Kaba kan moo ko jox responsabilité yi yor du Macky Sall. boo ko Macky Sall ne eh fiche yi joxe leen ko mu joxe ko saa si que waxu ko joxe ko moo tax joxewu ko kon kuy nax nit ñi naan waxtaan Macky nekkul ci logique waxtaan bu ñu naxante. Hmm. ay nit nag mën nañoo am initiative jóg di dem di dem mais du mujj fenn Abdou Bara Dolly il faut moo dégloonte ñu baax. Hmm. la mu waxanteeg Sonko ñun xam nañ ko la ko Sonko wax tontu xam nañ ko. te moom xam na ko ñun xam nañ ko. nee na 45 minutes. non déglul rek Sonko ba muy wax ak moom ma jox la ci benn information. ah man aw ma gêné rien à contre ab dara. waay xëy ci rôle am la nekk am na ci droit man mii woo na ma téléphone. Hmm. ne ma nañ ànd ci sëñ Mountakha ma ne ko man mënumaa dem yaa ngi dégg. Hmm. tax xam naa li tax mënumaa dem aw ma dara lu ma koy contre ti te am na droit jug dox jàmm parce que kilifa diine la mais la ko Ousmane wax ah hmm. ba mu ko koy wax Ousmane bi muy toog moom nanguwut a toog moom moom ñoom ñaar kese. Ah. waaw. daa ko wutal ah. seede. Ah. ñëw benn avocat ci avocat yi mu ne ko toogal dégg li may wax te la ko Ousmane wax ñun jot nañ ci moom xam na ko ñun xam nañ ko. loolu mu non loolu jarul wax. wala jaragul a wax. non loolu jaragul a wax parce que bis bu ko wax jotee ñun dinañ ko wax mais. dama bëgg rek ñu ànd. en tout xam wane na ni daal Ousmane est favorable à ce que. waaw loolu mais Ousmane Ousmane musul loolu loolu rassurez-vous Ousmane musul ñàkk favorable pour discuter ñun ñii da dem di ma di discuter ak Macky di ñëw loolu bu ma Ousmane ne woon imam bu fa demati wala boo fay dem bu fa yóbbu sama tur dootuma ko def mais Ousmane kan lay jox confiance pour mu war a def loolu. Ah. loolu waaw. Ah? amul no xam nga dafa am déta man dafa am débat boo xam ne bëgguma ci dugg parce que détail la mais dafa am solo fi ñu ci toll man li ma ah, la mën a wax ñuy leeral fi ñu ci toll ba Ousmane ni bu leen manipuler bu leen wax nii boobu mooy ñi ngeen àndal ak leen di déglu di xam gis nga man mbir yi fan la toll parce que ñoom it li ma la gëm ñoom it am nañ droit ci information oui man war nga nii man ko am libre ku libre laa waaw dëggantaan man bu intérêt Sénégal taxawee dootuma ci xool fenn yaa ngi dëkk te man ku may àndal maa ngi sóor suñ ànd di sóor suñ tàqalikoo hmm. moo tax duma ma taalibe kenn ku may àndal rek ngor moo ñu boole man Ousmane Sonko ngor rek moo ñu boole dama la bëgg wax ni Ousmane Sonko musul tëj buntu waxtaan waxtaan wi ñi ko doon tëj mooy côté pouvoir bi parce que ñoom dañoo gëm ni waxtaan wi arrangé wu leen ndax bu ñu jubóoyee man mii di wax ak ah. yow. Ah. woo naa ay kilifa au sommet de l' état. ñu leen bàyyi leen caaxaan yi ngeen nekk ñëw ñu toog waxtaan parce que senegal lépp ci waxtaan la mujjee mais waxi naka sa xandang liñ lay wax. ñenn ñi ñemewuñu Macky Sall amuñu fitu wax ko liñ xalaat ñenn ñi gëmuñu ni Ousmane Sonko mën naa jël réew mi bàyyi leen ñu dem toog seen kër te dara du leen ci fekk. kon ñun waxi waxtaan. mooy garantie yi ñuy wax. non garantie moo tàggatémbel yi xoolal Ousmane Sonko. amuñu discours yu mujj yi mujjee def Ousmane Sonko toogul fii publiquement ñëpp dégg ko. waaw mu ni man lépp lu ma nit teg sama jëmm ji baal naa la ko. ñu jàppee ko stratégie. parce que ñoom noonu la ñuy doxee moo tax mais Ousmane Sonko doxewul noonu Ousmane moo tax ñiy wër di takki rajo di mbett tak takki rajo naan Ousmane Sonko maa koy génn kaso. nañ ñu respecté ñi koy wax Ousmane Sonko bu ko neexoon du dem kaso. ñoom ni ñu def ñoom ba demuñu kaso. bu ko Ousmane Sonko defoon du dem kaso Ousmane Sonko bu ko neexoon xoola xoola dem négocier comme ni ko ñëpp di defee wala mu teg ay wala mu teg ay engagement am ci suuf du dem kaso mais ñoom li ñu man Ousmane Sonko mënu ko parce que Ousmane Sonko dafa ànd ak ay gor ay jullit yëkkati mbir ay gor faatu ci ndax moom ay gor dem tëddi ci kaso ndax moom kon projet boobu ci ngor rek la ko la mën a continuer